Sénégal jooy nanu wéetoo bilaay ku dem ci waawan bërki dem ba tey jile ñépp jooyo te naan Mansour borom dara jànge Sénégal wéet na fi loolo amboy ma dem a dem na noono sëriñ Mansour dem na noono borom dara jile dem na noono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 di bokki mbooro ak li ko di leen ziyaara di leen balu xaq di leen bal xaq di leen ndokkeel ci bis bu tedd bii nuyoo bi ñu ngi ciy jiital imaam yu tedd yi fi teew الإمام الأكبر إمام لام الإمام الأكبر إمام بوكر الإمام الأكبر إمام الحاج عثمان بك ak aima yi nga xam ni ñoo fi teew ak muqaddam yi di nuyu suñu mag suñu wëllëre suñu lépp di alxaaji Papa Kane koy nuyu di ko ziyaara di ko jox cëram di nuyu ki nga xam ni yàlla dogal na ñu tudde ko bis bi tey muy Serigne Mouhamadou Moustapha Fall <coughs> ak ñi mu àndal di nuyu sëriñ Abdoul Aziz Mbow di nuyu sunu doomu baay alxaaji dut kenn di ko ñaanal yàlla wér ak gudd fan di ko ñaanal ñëpp di nuyu suñu wëllëre suñu lépp di président fédération taax yi mbooro ak ni ko wër di Serigne Samba Diop di nuyu suñu doomu baay suñu wëllëre sunu lépp di président dairatul muqtafina muy cheikh mouhamadul amin fall di nuyu sunu jigéen sunu wëllëre sunu xarit sunu lépp di xaajatu aminatu wadd booli di nuyu suñu doomu bàyyi suñu wëllëre suñu lépp koo xam ni bàyyam ak suñu bàyyi la woon di sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Mbaye bu suñu bàyyi bu tedd ba yàlla yàlla yokk leeram bay alxaaji Saalih Mbaye ci gàttal ñu ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di balu xaq ñëpp suñu soxna yu tedd yi nga xam ni fa tabaarakallaahu am taxawaay lool taxawal lii tey ki njiital suñu jigéen ki nga xam ni sunu jigéen bi nga xam ni du tay du sonn du yokkat na ko xamee woon daawaati jéeg noonu nga koy xame daaw noonu nga koy xamee ren waaye itam noonu nga koy xamee déwén du soppeeku muy xaajatu am yu aminatu wàdd bi nga xam ni mooy seen njiit yaakaar naa ni loolu seede ngeen ko ami wàdd ku baax la ami wàdd ku baax la ku am pas-pas la ku dëggu la ci li mu nekk fa tabaarakallahu xel day fattu xel day fattu doomu aadama ci fàtte la ko yàlla bind waaye dafa am koo xam ni ci ñi ma waroon njëkk a tudd la bokk ndax sama wëllëre wu yàgg la sama lu ne ma nga ca lu baax ma nga ca muy Charles Sène fàtte rek la mu ngi fi teew lu xew mu jóg ngir yàlla ak yëg doomu aadama yi kon Charles ñu ngi nii nuyu ñu ngi lay ziyaara ñu ngi lay jox sa cër fa tabarakallahu guddi na te ni ko xaaj duudu waxe ñeenti fan a ngi nii ñu ngi ci àll bi àll bu xonq lool gib got rang-rang poussière waaye da nga koy muñ gaa ñi léeg-léeg ñu bari dañu fa may faral di wax ni ma waa Mame yow lu tax boo dee dem ci àll bi fu mel ni ay Casamance wala ay Gambie yooyu lu tax doo jël avion mu yóbbu la ba ca dëkk bu mag ba li des nga àggalee ko ak oto man di leen kon nga tiim njaboot man di leen kon nga tiim njaboot waaw wax laa wax de ma ni kon nga tiim njaboot ndax bu fekkee ni benn dëkk moo la tax a jóg muy programme ñu baree bari bari ci yoon wi dañuy sàkku nga jaar ci ñoom ziyaaranteeg ñoom ñu gis la nga gis leen ñooñu boo leen tiimee fu ñu jëm te avion te avion da day tiima da day tiim ma ni leen kon li ñëpp di mos bàyyi leen ma mos ko rek xamal nga lu ko àdduna warante la warante waxuma warante de waxuma warante war baaxul dama ni àdduna warante la warante bu tayee nga war bu ëllëgee ma war mooy neexalu ànd waaye bis bu ne sëggal ma war la bu yàggee nga ni ma sonn naa ak koo mën doon waxal walaw su waykat ba nee na walaw suila annaasu turaaba la aw shaku ida qiila hatu an yamallu wa yamna'u waykat ba nee na walaw suila annaasu turaaba ida qiila haatu an yamallu wa yamna'u ba nee na nit naan la bis bu nekk suuf suuf li muy yomb yomb nga xam ni boo sëgee fa nit ki bis bu nekk mu naan la sëggal jox ma suuf bu yàggee nga ni ko sonn naa kon àdduna warante la nit ñi dañoo yaakaar Tiwaawan bëgg Tiwaawan xiif Tiwaawan mar Tiwaawan di bëgg di ñëw Tiwaawan di la fa fekk ñooñu lay fekk Tiwaawan tey nañuy ñëwee Tiwaawan mooy yéeg wàcc fu ñu war a jël oto jël oto ñëw fu ñu war a jël sareet jël sareet ñëw fu ñu war a weer war a war a ñëw fu ñu war a dox dox ñëw ba agsi bu ñu agsee nga recevoir leen boo xamul ca la nekk ñoom seen xaal mën na am doo leen yëg bi yenn yëg yi kon war nga jékki-jékki ñoom ñooñu di yëg wàcc nga jékki-jékki yow itam nga taal sa oto dem fekki leen ba xam ñoom la ñuy daj ñuy ñëw nga daj ko yow itam muy warante bi lañu waxante dëgg waaye bis bu ne sëggal ma war la wóorul te gis nga damay faral di wax gaañu ma ni leen kenn ëppul nit nit nit dong la mën a doon nañ waxante dëgg gis nga Cheikh ma wax la tey benn mbir ngeen jàpp ko yéen waa Mboro xanaa di ngeen ma xoolaat mani suñ Fall maa ngi lay nuyu di la ziar après maa ngi lay nuyu di la ziar suñ Fall ma wax la benn wax anal suñ mbay waaye yéen ay ay ay ay ay wax ay waxkat yi kii ngeen ay waaw wax nga fi ba ñëpp kontaan waaye ma am benn wax ma la wax pour booy pour ba foo demati mën nga waxaale ko man man dolli la xam nga xam nga léegi man dolli nga ma xam-xam man euh, am na loo wax léegi man dama ci kontaan de bi nga ne li nga mujj wax moom man li nga mujj wax dafa ma daaneel yàlla xam na ko li nga mujj wax waxat waxat ko ma dégg waaw. salaamaaleykum maaleykum salaam. waaw. ñu ni sam nopp ril. waaw nga ni merci. waaw ba mu jàng français xool bu jeex la. bi bi bind bu rëy ko. jàng nga ma lu rëy rëy rëy rëy rëy dina ma dem léegi ma demati wax ko. <laughs> ma demati wax ko yow non yow sa baay nii la nekkoon ak sama baay ah sa baay nii la meloon ak sama baay. di ko di ko di ko di ko di di ànd ak moom fu ne ñu di jëm fa kon yow tey bu ñu bokkee jamono mag ña yàlla def waaw nga wax nii ma jële ci bind te sa bàyyi noonu la ko daan waxee sama bàyyi di ci jël bind fa tabaarakallaahu jaadu na moo tax bi nga jógee di wax ma ne ah euh, bi bi abi iqtada adiyun fil karam wa man yushabih abahu fama zalam waykat ba nee na iqtada roy na عدي عدي بأبيه تبايم حاتم الطائي في الكرم كتابه ومن يشابه كنور نور لك أبه بايم فما ظلم تونيل ولا من ومن يشابه كنور نور لك أبه بايم فما ظلم يا يم تونيكو نحن كل جيل سي نورمال normal jaadu na jaadu دمالي jaadu na fekk dama lay laaj benn doomu golo ndax mën naa toog ñaari minit te wokkatuwul neelajuwul geesuwul lan moo ko waral da koo doon ci baayam ba àdduna si ba léegi ndax mos ngeen a gis lenn cheikh moo tax am loo xam bu gën a defee rek da ngay xam fam fa mu cosaanoo kullu shay'in yaudu ila aslihi doomu janax ndax mës ngeen a dégg fenn ci àdduna wala ngeen gis fu mu bëttee ab ñag ñu sekkil ko dégg mais ku dul doomu janax bu ko defee ndax ndaw yi dégg yu bari dafa dafa doonu bët ci baayam mani nag ngeen déglu bu nit ku amul njariñ amul da ngeen jàpp loolu ci ñu tey ngeen def ko bind nit ku amul njariñ amul xam nga kan moo am koo soxlaa la gul boo ko soxlaalee rek nga xam njariñam te gis nga yéen mbooloo mi xam nga lu gën a jafe ci àdduna ngeen jàpp ko tey li gën a jafe ci àdduna xam nga mooy lan soxla bu tëë faju ku mu dalagul xam nga tax bul xeebal kenn soxla maa la ko li gën a ci àdduna mooy soxla bu tëë faju ku nag xamaguloo ko waaja ma ni waaja dafa am ngénte suba di ngénte li suba suba ngénte wëlbatiku mooy taawam te ndaw sa sëyeegul kër ndeyam ak baayam ñett a ngoog de waaja dafa am ngénte ngénteel taaw suba la jabar ja sëyeegul këram ma nga kër ndeyam ak kër baayam te war na koo teral ci biiri mbokkam balaa muy sëy waa ji ba ñu nee suba la ba ba ci ngoon amul xar amul euh, dugub amul ceeb amul dara lu mu ngéntee poche ba ñatt dërëm newu ci te suba la ngénte di mu ne xam nga may def du sama du sama aada sax waaye xam may def naa def li ñëpp di def du sama du sama aada nag mooy lan yalwaan mu génn ci mbedd yi tàllal loxo yi sarax ngir yàlla sarax ngir yàlla wa wa wax soxla soxla bala sarax yàlla sarax ngir te def nii loxo bi sarax ngir yàlla ku romb sànni ko ñetti dërëm ñii romb ku romb teg ñeenti dërëm ñii ñaar fukk ñii téeméer di ko sarax ba mu paree ba war a ñibbi ba war a di laa wax ba mu xoolee li ko saf lépp quinze mille francs la ñetti junni ñetti junni ñetti junni de dafa mel ni jënd na xar ah waaw mais jëndul xar Cheikh te nag xanaa ñetti nag di nga rey xar yàlla dogal fi mu toog lu yàlla nar def rek ndeysaan fi mu toog am benn benn borom pajero bu mag a mag a mag a mag karkat yu ñuul yooyu xamoon mu tudd xam nga xamoon mu tudd sax kat yu mag a mag a mag a mag romb gis ko mu taxaw xam nga maanaam seetlu gis nga doomu aadama doomu aadama boo xoolee geste yi da koy xool rek jarul mu di la wax mais da ngay xam gis nga foo fekk nit foo fekk cheikh foo fekk ci àdduna ma wax la kon ko tey ngeen xam geste yi foo fekk ci àdduna ku def nii ku toog def nii daa jaaxle <laughs> foo fekk ci toog def nii daa jaaxle foo fekk ku jël baaraamam teg ko ci fii day xalaat xalaat kat waaye ku def nii dafa jaaxle borom oto bi romb ko xam nga am nañu baax ñu tabe borom oto bi romb ko xam naa chauffeur bi kace borom oto bi moo ko taxaw chauffeur bi ni waay ñëwal waay ñu ñëw mu ni ko duggal dugg ñu tëj oto bi chauffeur bi mu mën a bi mu mën ca chauffeur bi xam naa borom oto bi moo ko laaj loolu borom oto moom ba léegi ñeppeegul gémmiñam moom waxul chauffeur bi rek mooy wax mu ni ko sëñ bi lu xew mu ni ko man daal dama am ngénte suba sànq ba léegi maa ngi yelwaan ñi fi romb ñëpp sarax nañ ma waaye ba ma xoolee lañ ma sarax lépp ñetti junni la tollu te loolu ngéntewul chauffeur bi mooy wax borom auto bi ma ngi ca gannaaw dégg na dégg na soxla waa moom ba léegi waxul de mu ni tereet sac bi mu yoroon tereet sac ba mu yoroon bi bi dix mille yu xonq ya xewoon mu wàññi ba muy cent mille francs dafa am ñu rëy xol dafa am ñu rëy xol ba muy cent mille francs ñaar fukki junni jox waa ji ba léegi xamul ki ko jox déggul baat mu ni waat tereet cent mille francs la ko jox de la ko ñëkk jox cent mille ñu wat tereet cent mille ko ci loxoom ñaata ngoog parewul de ni wat tereet cent mille ko ci loxoom ñaata ngoog ni wat tereet cent mille ko ci loxoom ñaata ngoog ni wat tereet cent mille ci loxoom ñaata ngoog cinq cent ni ko ngéntee ko mu jékki-jékki ni ko waaw sëñ yow baax nga de waaye jékki-jékki nii man man xam naa ni damay gént waaye yàlla bu ma yeewu ci gént xam naa damay gént man xam naa ni damay gént waaye yàlla bu ma yeewu ci gént gi waaw man xam naa ni man damay gént man xam naa ni moom damay gént waaye yàlla bu ma yeewu ci gént gi ni waaw waaj sëñ bi yow yow yaatu xool de baax nga de yow yaa tabe waaye yow nag sëñ bi yaay mu ni ko man maay maay jiili mu ni ko mu ni ko mu ni ko sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam daa daa jot la dëgg la la wallahi fu la fu mu ko na baxa yaakaar ni moom ñetti junni ya lay lay demee këram ndeysaan fas yéene wax ak goro ya ndeysaan ñu yab ko léegi kii romb ndeysaan yàlla def di kii romb rek ndeysaan ah jël 500000 teg ko ci loxoom ndeysaan moo tax ba mu ko laajee mu wax ba mu wax ko moom mooy kan mu jox ko mu jox ko daraje yonent yi sallallahu alayhi wa sallam 99 yi ay melo la ay sifaat wahaabu razaqu fatah alim musawir man bi ma ci gan di ma ci yépp ma neex yépp ma itteel waaye bi euh, ba ba ma xamee baatu samat ma samat yaakaar na ni ci la bokk ci turu yàlla yi ba ma xamee baatu samat ba léegi ci laa noppalu samat samat qul huwa allahu ahad allahu samat samat xam nga lu muy firi mooy ki ñëpp jublu ci seeni aajo te moom jubluwul ci aajoom ci kenn samat mooy ki nga xam ni ñépp ci yow lañuy ñuy jublu ku am aaju ci yow lay ñëw wala aajoom du faju te yow doo am aajo ba jublu ci kenn kooku kenn kese la kenn kese rek dong képp mu yàlla ku dul moom di nga soxlaal sa morom wolof nag nee na wolof nee na wolof nee na koo war a ko ko ko koo koo nar soxlaal déwén am ko ren koo nar soxlaal suba am ko tey sunu sëriñ Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour daan faral wax naa ne joote mooy jiitu joote kon man même buñ ma doon watak bisu daayira ami wadd bii bisu mbooro bii sama bop rek moom ci doy bu ma ñëw kenn ma ñoo tam and ak sama doom bay xal ju du kenn du du deggal leen ba ngeen contane ma ñëw rajaxe la ñu def na xana ami contane nga ah, ni mu la sagali ñew man li ma tej mom xam nañ ndax ñoo nekk ndawul woon ñu ñëw ni nga xam ni kon ah sacrifice yi ñu def ngir sa ngir sa bii ñun ñoo ko xam buñ ma doon watat laa wax ah ma ñëw duudu bu ko doon watat mu ñëw foog ñu ñëw sagal la àdduna sagalante moo fi ne nit kenn du ko lekk du ko naan waaw te gis nga damay wax fa faral wax gaa ñi ma ni leen njool njool mënula déyoog ndaama te sëggul ma ni njool mënu la dayoog ndaamata sa gul du ni ndaama moo yu fekki ko jël jël jël jël làmmiñ wa jël jël làmmiñ wa ah, euh, la muy wax mu dugal ko ca nopp ba déedéet njool mooy sëgg mën a dayoog ndaama waaye ndaama du yu xam ti ko wax day àgg nañu waxante dëgg mbir mi affaire bi lenn dong la dangiiral rëy mën a fëgg dënn nit bu la yaakaaree jox la boppam loo ko fayal du jox ko sa bopp tooñ nga dañu waxante dëgg te gis nga gàncax gàncax ndox a koy roose mu màgg waaye gàncax gi ñuy wax cofeel ndoxum yëg moo koy roose ma xamal la benn mbir yow waa daayira bi ak ku may dégg nag nga jamonoy tey jii jamonoy tey jii ñu ne jamono ju nakare sàmmi pas-pas la rawati na mboro gi mboro mboro mboro mboro mboro mboro mboro dara la de mboro gi mbooro na waye rëy na de man mboro dama ko dama ko xam sama baay dama fay téré duggal fi mala ko wax man ba ma nekké xalé bu ndaw sama bàyyi may and ak sama ndey soxna mam xaar di ñew fi di ko fekk ci xunjo wa kër bayi ma xujja ka mu jaaxaan fofu di nan nit wax ko ne muy nan xali bobu ñu abdourahman ni di ko wër ni nek ay kii nek ñu ay mag nonu bàyyi saliw mbay nek fofu ne fi daan na ñëw fii am fi weer man ak sëriñ Habib sama mag mi daan jóge Tiwaawan di jël suñu téere di ñëw ñu euh, oto oto oto bii indi oto bii indi euh, ndékki li moo ngi daan indaale bu ñu ñëwee mu jox ñu bind bu ñu paree mos ca ndékki la dem jàngi suñu demaat Tiwaawan jàngi suñu bind ay quatre-vingt-quatre quatre-vingt-trois quatre-vingt-cinq jëm kaw kon yàgg na bay Saliou Mbay jël ma tette ma ci mbooro bëgg loo ma mbooro ni ma si mbooro ay pële ko moom ak ni wër mbooro pour nag nga mën a jëflanteeg ñoom ñaaray tax boobu Baye Sall Baye Baye Saliou Mbaye moom ko waxoon Baye Saliou Mbaye yàlla na yàlla yokk leeram mag bu baax ku daan taxawu Cheikh Sidna moom ne mu ni ma pël boo ko bëggee am yëg ko te bu ko toroxal <laughs> ah est est ce que loolu du ñëpp kan moo kan moo kan moo bëgg ko yëg kenn dong nga ba kenn dong nga bañ ko yëg nag kenn dong dong dong dong ab sàcc dong nga bañ ko yëg ab sàcc dong nga bañ ko ko yëg waaye ku dul sàcc bëgg nga ku ne waxal ab sàcc di moom moom moom moom bi <laughs> dégg <laughs> ma jamonoy tey jii rawatina mbooroo gii képp ku fi nekk am ci looy yëngatu ah te amoo fu fulaak fayda mel ni mel ni la sëriñ Babacar si waxoon ci taalibe waaw sëriñ Babacar si waxam sëriñ Babacar si kenn du moom waxuma walaay waxuma xam-xam ba waxuma waxuma xaala cheikhu ba déedéet waaye jàngal la adduna rek mu xamal la mu xamal la baatu wolof rek wolof rek mu wax la ko nga nga nga nga ni kii du nit dam na wax ni taali dafa war a yore jikko salguuf salguuf gàncax la goo xam ni lu ngelaw li bari bari bari bari bari bari bay daanee li garab salguuf lay waaf rek ànd ak ngelaw la bu ngelaw li taxawee nit bi salguuf ñu waat foccet taxaw moni ci moom tus mu ni taalibe dafa war a yore jikko salbu jël pas-pasam am fu mu ko denc te gis nga nit dafay dëgër nit dafay dëgër woyof baaxul yolom baaxul lu ñëw yóbbaale la baaxul kuy def lu tëgg lu tëgg te xamoo te xamoo ñay seetaan ak ña nga dem wàlli ji léegi nga dem wàlli ji nga fekk fa ay jinne yu fecc ay jinne waxal wolof nag wax bu am solo Cheikh wax wolof wax bu am solo nee na dégg leen baax li may wax nit fu mu nafa fu mu wul bu mu fa wala bu faa lu ñu ko fa moomu ko moom moo ko ma ni nit fu mu nafa fu mu wul bu fa wala bu faa lu ñu ko fa bu ko moo ko kan moo ko fi mën a kan moo ko fi mën a waxaat nii ma ko waxee sëñ bay sëñ Seck ëcc ëcc ëcc ëcc ëcc may naa la ci digal ah daanu la falabru dama ni nit fu mu nafa fu mu wul bu mu fa wala bu faa lu ñu ko fa bu mu ko moo ko ma ni dëkk bi dëkk bu naqaree dëkk bu naqaree sàmmi pas-pas la ndax nit bu demul du bëgg ku dem nit bu demul du bëgg ku dem waaye la suy la sunu sëriñ bu baax ba daan wax rek yàlla yàlla yokk leeram sama xarit ba loolu wax na ko léegi sëriñ Abdul Aziz Sy Al Amin daan na wax ni jamonoy tey jii ku def métier ku def métier sàlloo mbott yi tëb ci nawet yépp ni ñu bari yow nga def métier mbott mu tëb nga tàcc ko sa baxaw dina booy doo góob doo deqi ñey góob wala ñuy deqi doo ci bokk yow mbott yi tëb nawet ak ni ñu bare bu tëb nga tàcc doo góob doo deqi ñey góob ak di deqi doo ci bokk yow waaw nga def rek muy lenn lu ñëw nga nga bàyyi ci sa gannaaw am fulak ak fayda nag xoolal xam li nga am nga téye ko man loolu la gis xam li nga am nga téye ko ku jaral ben yoon kumu jaral ben mu yak yow mu jaral la jundi mu defaru ma am lu ma len ci netti te soxna ami li ma nara wax góor defu jigéen ko def kon yéen jigéen ñi beneen affaire la lii ma nar a góor defu ko te jigéen a jàkkaarloog góor rattax ko ko maa la ko wax te góor ga nag du n'importe qui attention du nit ku ordinaire du n'importe qui ma ni jigéen a ko def jigéen ja xale la te ka mu ko def jëkkëram la te jëkkër ji du n'importe qui xanaa bu ñu nee xalifa xalifa yonent bi amirul muminina omar ibnul xataab boo ko xam nga ni du n'importe qui ku dem ba ma ni ku dem ba pour xamal leen ki mën a wax waaw daf ci baax pour xamal leen ki ma nar a wax nga xam ni ba nga xam ni ba ba ba diine tumurankee jaaxle moom moo ñëw wala yusalluuna illa fi shiaabi ida mashtadda usrun fa yusru llahi fi amami wa innahum xaraju min baadi kawnihimi zujlan wa kaana shihaabu ddiini daa darami والإمام سمعنا وإنهم خرجوا من بعد كونهم زجلا وكان شهاب الدين على نبي Sofia.

الذي أسلم الفاروق ثم bi jullit yi di nëbb seen diine ngir yéefar yi di làqatu ci xur yi di julli moom moo ñëw génne leen ni xanaa du li ngeen nekk dëgg la mooy bi mu tuubee xanaa du li ngeen nekk dëgg la ñu ni ko wax mu ni génn leen ba kenn laal amar moomu moom la yàlla may ñaar yoo xam ni nii kilifaam di sëriñam muy ngir pas-pasam ngir dëggoom ngir dogoom amar moomu moom la yàlla may ñaar yoo xam ni nii ngir dëggoom ngir pas-pasam ci Seydina Muhammad ngir muñam ngir ragal yàllaam yàlla mayu ko woon kilifaam bi Seydina Muhammad waxin la bu ma bu nettalee di ngeen xam li ma bëgg a wax Omar ibnu Xataab si moom Seyid Iblis moom rek la ragal woon waxal aha Iblis moom rek la ragal daf ko ragaloon nee nañu Iblis bu ma saan sóobu ciw yoon Omar sóobu ciw yoon Iblis xam ni Omar a ngi ci yoon mi day teggi ndax bu dajeeg Omar Omar day jël yaram di ko ko caw muy yuuxu ba ni mes Iblis Omar rek la ragaloon war siyaaj mali waxte laqad haajabani rida saalisil aqmaari yurdi ilahana yafiru lahu cheytaan wa huwa nadiru nee na rida saalisil aqmaari ngër maandel aji ñetteeli weer ya Omar mooy ñetteel Mouhamad mooy premier weer Aboubacar di deuxième Amady troisième mu ni rida saadisil aqmaar yi ngër maandel aji ñetteeli weer ya la mu gërëm la mu bëgg yurub yi dana gërëm loo ilaahana yàlla Omar mu bëgg yàlla bëgg na mu ni yafiru dana daw lahu ngir Omar ak cheytaanu cheytaan mu day daw nee nañu bu masaan di julli bu ne allahu akbar rek iblis mi ngi ñëw di ko jéem a yàqal jéem jéem ba ba muy pare mënu waaye dina ko jéem a yàqal bi ba muy pare xoolal kële Iblis di ko daw kii bu ju bu bu kàbbaree Iblis ñëw ñëw ñëw commencé ba bëgg ko du ko def du ko def de du mënu ko ndax dina koy xamal ci xadis bu wér nabi saa am na benn bis muy julli muy jiite saxaaba yi jékki-jékki mel ni dafay da dafay yóotu ci jaww ji dara ci jaww ji di mel ni dafay yóotu am lu muy yóotu ci jaww ji bi bi mu paree comme saxaaba yi moom lu mu def ñu laaj ko pour mën koo bind ñu ni ko sang bi yow dañoo seetlu bi ngay julli dafa mel ni dafa am loo doon loo doon yóotu ci jaww ji mu ni waaw bi may julli ba ci biir noonu yàlla bi iblis dafa ñëw doon ma bëgg a yàqal waaye gisu leen ko mais man maa koy gis ma ma yoot ko nag ba ni ko nuus téye ko xoj ko bi ma ko xojee ba ma ko bësee yëg naa tooy tooy ci sama loxo moo tax iblis dafa guus ci sawara ci safara la ko bind yàlla bind ci cosaan waaye mujjam dafa guus iblis dafa guus xeeñ ñaaw dofe bon moom lépp moo bon ajizatun moo tax waykat waykat ba waykat ba ba muy xas ndaw sa daf ko ni ajizatun lataa u dardabiisu axsana minha manzaran iblisu ni ko dafa édenté bëñ yi dafa waaw buxur yi sëgg dofe iblis iblis sax a kanam kon de iblis ñaaw na beneen bi Seydina Muhammad du jàng ngeen ni bi muy bi muy gàddaay jóge Màkka dem Madina façon làqatu bu ne làqatu na ko wala jàngu leen loolu euh, jël jël jël mbàjjam sangu ko sangu ko àll yi pour pexe bu yéefar yi ñëwee ni moom moo fa ne ak yeneen ak yeneen ba ni mu àgg Madina te yi nee nañu Omar bi muy gàddaay bi muy gàddaay bi muy gàddaay nee nañu dafa solu ba mel ni kuy dem xare sol mbubu koŋ yore jaasi yore xeej yore fet digg bëccëg naaj bi ni dàng mu ñëw ci digg digg digg digg kaaba fekk fa ñi gën a yéefar yi gën a yéeme yi gën a soxor yi yi daan lor Seydina Muhammad di lor jullit yi di ay kàngami Quraysh di ay kàngami yéefar yi mu ñëw tiim leen ñi leen hee digg bëccëg hee ñoom ñëpp ñu geesu mu ni leen man Omar may wax ak yéen damay gàddaay jóge Màkka dem Madina mais li ma leen bëgg a wax xamal yéen ñii laa wax yéen ñii li ma leen bëgg a xamal mooy ku ci bëgg sa doom di jirim sa jabar ténji la daf ma ku ci bëgg sa jabar ténj la sa doom di di jirim dab ma moo tax moo tax moo tax xam-xam bu mag ba leral ñu loola ca xilaas ba ni hajara sahbu arsalan muhajaratan min qabli daaka mu aaxaatun maa udmi al سوى ah siwa umar al عمر ah أحزم إن لم يبق معه سوى سيدك والقدر على نبي وآله أجمعين سلام ربنا دائما ستر سمع من سرا سوى عمر الفاروق أحزمهم لم يبق معه di siddiqi wala tudd ma Makka dem Madina as saxbu saxaaba ya arsaalan par mbooloo par mbooloo muhaajaratan ak gàddaay ñoom ñëpp kenn ku dem kuy de kuy dem mbooloo ngay def ndax ndax ndax bu dee groupe par par groupe par mbooloo yaakaar naa ni bu bu loolu amee mën na am bu lay yéefar yi dabee itam ñaare ah, duñ la mën a dara ndax mbooloo ma ñu xayaat ñoom nee na ñoom ñëpp def noonu sirran ci yolleeku si waa Umar ba mu des Umar alfaaruqi Umar mi nga xam ni moo teqali dëgg ak neen ba ca tegu nag mooy tax ngeen xam li ma bëgg a wax si ay may fa ahzamihim Umar ma leen takku Umar Umar léegi Omar moomu nag waaw kay kon wax naa leen kooku mooy kan kon xam ngeen kii n'importe qui waaw kay pour ngeen xam ki ma nar wax ak ki mu jëflanteel xamu leen ni ñu baree baree bari xamuñu benn secret Omar takkoon na doomu Ali ibn Abi Talib kooku na ngeen ko jàpp. Umar ibnu Xattaab takkoon na doomu Ali ibnu Abi Talib ak Fatima mais ci jabar yu ndaw yi muy xale mu takk ko xam nga Seydina Muhammad Abu Bakar Omar Ousmane Ali ñoom ñeent ñaar ñi daf leen a may doomam ñaar ñi may ko seeni doomam Seydina Muhammad Aboubacar daf ko may doomam doom jënu mu tudd Aïcha Hafsa may ko Omar may ko doom ja doom jënu mu tudd Hafsa mu may ñaar ñeneen ñaar ñi Ousmane ak Ali yi kenn ku ne mu may la doomam dafa may Ousmane Ruqayya mu faatu mu may ko Umm Kulsum rakk ja Ali mu may ko Fatima Fatima boobu nag mu mayoon Ali moo jur umu kulsum bi nga xam ni moom laa bëgg a wax muy xale Omar takk ko xam ne Omar tàng ga ca tàng ga ca ragal yàlla ga ca dara ja te bi te bi muy def ak lii soxnaam boobu mi ngi nekk xalifa bi sallallahu alayhi wa sallam ngeen déglu bu baax li may nettali nag kooku surtout jigéen ñi bu ñu paree def ci njàngat Omar da doon xulóog Umu Kulsum loolu nag jombul kenn loo nekk nekk nekk kilifa benn ki ñenki jigéen moom fokk nga am mos ca wax day am benn ki ñenki jigéen moom fokk nga mos ca ah Sidina Muhammad nan la ko fi ay soxnaam def sonal ko sonal ko sonal ko ba mu gàddaay leen dem yoonam ba yàlla meral ko ni asa rabbuhu in tallaqa kunna an yubaddilahu azwajan خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا xam nga boobu yàlla boobu yàlla ah, nu bu ngeen def def la ba mu fase leen man yàlla maa koy maa koy remplacer jigéen ñi leen gën fuuf dàq leen ay jànqat yi jeeg noo xam ni jaamukat yàlla nangam ak nangam nangam ak nangam kalma dugal <laughs> boobu xam nga boobu xam nga yàlla boobu xam nga yàlla leeral na ko ah dañ ko fa dañ ko fa am na lu ñëpp la waaw leer ñëpp la waaw yàlla def ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu xuloo nag xuloo comme xuloo euh, jëkkër ak jabar bi ñu xuloo ba xuloo bi tàng nga xam nga lu ko Omar wax ni ko yow mu xultu noo may fantoo bis ni tey dinaa fexe yow dootoo bég mu ni ko bis ni tey dinaa fexe dootoo bég dinaa la texee di loo dinaa fexe ba dootoo bég waaw cheikh loolu ku ko sa borom kër wax benn sa borom kër di mag di kilifa di di xalifa yonent bi tàng yore sa lépp jàkkaarloog yow ni la dinaa fexe ba texee di loola dootoo bég loolu noo war a def dama bëgg nag bu ma bu ma waxtaan bu ma waxee ba pare lii ma nettali ko waxuma waxuma rek jigéen ñi mais képp ku fi jógee bo fi jógee waatee na nga xoolaat sa pas-pas nga dugal ko fii ma bëgg a wax waaw nga dugal ko fii ma bëgg a wax Omar mi soxnaam dinaa fexe ba texee di loola dootoo bëgg Umu Kulsum di xale ànd ak dal ànd ak sago ni ko Omar yow loolu mënoo ko <laughs> wallahi mu jàkkaarloo Omar ni ko yow mënoo maa texee di loo mënoo maa tee Omar ni ko yow da fontoo xam nga li wax est nga mu ne ko Omar mënoo ko Omar ni ko waaw lu waral nga ni mënuma ko mu ni ko yow Omar bu fekkoon ni li may bégloo dafa nekk ci ay oto yoo may may ak mu nekk oto bu génn bu bees marque bu bees nga jëndal ma ca benn boo téyee sa loxo ma texee ji kon dootuma bég mu ne ko bu fekkoon danga ma dogaloon weer wu dee wala ak mu nekk nga jox ma un million wala nangam ak nangam boo téyee sa loxo joxatoo ma ko ma bëgg mu ne ko bu fekkoon li may bégloo li may kontaanloo ba nga xam ne ku ko jëlee ci man dafa nekk ci ay oto yoo ma daan may wala ay kër yoo ma daan may wala xaalis yoo ma daan jox wala or yoo ma daan jëndal boo téyee sa loxo ma texee di waaye mu ne ko man li may bégloo nekkul ci lépp nekkul ci oto yu rafet nekkul ci kër yu rafet nekkul ci xaalis nekkul ci or nekkul ci leneen téyel séef mu ni ko li may bégloo ba ku ko jële ci man dootuma bég ma texee gi yow Amar àggoo fa mu ni ko lan la mu ni ko man Umu Kulsum li may bégloo di ma kontaanloo dama koo jël dugal ko ci sama biir ngëm sama ngëm ma jël ko dugal ko ci sama biir xol sama xol àggoo fa yow Amar déggu ma dégg ma gone ji wax na de ah ah Fall daf ko ni Omar li may dégloo gis nga moo tax gis nga moo tax nañu bàyyi xel leen ku ëmb sa sànqal ëmb sa kees wax laa wax la ku ëmb sa sànqal ëmb sa kersa كل فيتي في تيلي في وحل دي ندوسي دفني عمر تاي طيب، بو فكيني لي مي بيكلو دا فا نيك اي اوتو يو رافيت بو ماكو جوخاتو مان تورخنا لولو ام ليغي نك لولو ام ليغي billahi laa wax looloo am léegi moo tax xool leen sëy yëpp tas nañ lu ko waral ba ngay bëgg ndaw si ba ngay bëgg ndaw si dafa am loo ko wanoon mu séyal la ngir loolu nga dem ba ci biir nekkatu fa mu wan la gannaaw كن كن تسانو تسانو سي المودة والرحمة تشوفيل اك يرمدي بو تي اموتول لغي نك سي تشوفيل اموتو سي انتري رك بو نيهي ماغي في بو ديك بني نخ pour le meilleur et pour le pire mais jamono tay ji pour le meilleur rek pas pour le pire <laughs> te gis nga billahi dama koy faral wax gaañ mi di ma ree jarul ree gis nga billahi laa wax ku ci am jabar mu nekk sa nopp naan la maa la bëgg bu dul yow ma dee boo amul woon ma créé la ah, balaa nga ko doon xam nga dee dof dof luñ ba dee rek nga xool dof dof lul ba dee ñu suul la ah ñu suul la muy ténj ku mësula muuru ñu muur ko mësula yore kurus yore kurus tàllal tànk ya ñu teg ci saru dëkk ku ñëw ni sa si gi ndigaale mu yore kurus ga naan ah, ah, ah. am na ñuy ñëw ci ay góor naan si gi ndigaale am na koo xam ni mu sigil ndigaale mu ni sigil sa wàll sigil ndigaale sigil sa wàll sigil ndigaale sigil sa wàll mais am na foo xam ne nii si waa benn waay ñëw na na ca nobba asalaamaaleykum na si nga yaakaar daf ko naan sigil ndigaale waxu ko sigil ndigaale de xamul ko xamul ko liggéey bi boo ci génnee bu ma sóoraale ma candidat laa jarul dee de wallaay jarul dee li ma wax dama koo xam ne kon cosaan ba mooy cofeel ak yërmande xam nga lu war ak yàlla njëkk eh, jiital cofeel teg ci yërmande koo ko koo bëgg doo ko sañ doo ko néeg a def lu bon da nga koy yërëm mooy lan gis nga gis nga yërmande yëpp yéen mbooloo mi xam nga xam nga ban moo ci gën cheikh yërmande xam xam xam xam nga xam nga yër yërmande jëkkër ci jabar xam nga lan la laaj naa leen doon jëkkër jëkk jabar yërmande ga muy am jëkkër jëkkëram xam nga ban la yërmande poche poche wax laa wax de am na ñoo xam ne ni yàq rek lu seen jëkkër am yàqu sonal ko sonal ko sonal ko bu mu dëppoo keesu jàmbur wala nangam nangam mu ni ko rawu ca kasso ba mu seeti ko ñetti fan may ma sama baat te moo te moo ko duggal fofu kat wax len lolu amula wax len ak amul deug la waaw yermane poche yermane poche mo gëna am solo ci yermane jëk jabar ci jëkëram nekkul juum ni ni ni wax ni ni ni ni Omar bu fekkoon ni li may bégloo ci oto la nekk wala kër wala nangam ak nangam boo ma ko joxatul ma ma texee mais mu ni ko man li bégloo di ma kontaanloo ba ku ko jëlee ci man ma texee di ma torox dama ko jël dugal ko sama biir ngëm sama ngëm ma jël ko dugal ko sama biir xol sama xol àggoo fa yow Omar yàlla rek a fa ne man yàlla ñu ma gëm moo fa ne moo tax ma ne doo ma tus bu nga a jógee fii Omar ni yott mel ni dañ koo sotti ndox mu tàng ndox ndox mu seen ni ko wax ni ko wax dëgg yàlla wax nga dëgg ni ko wax dëgg yàlla wax nga dëgg keroog keroog keroog la ko gëjëtee wax loolu keroog la gëj a xuloo ak moom kon nag yéen mbooloo mi jël leen seen ngëm maanaam li leen di bégloo ku ne la lay bégloo jël ko nga dugal ko ci sa biir ngëm sa ngëm nga jël ko dugal ci sa biir xol bu boobaa kenn du la chantage chantage baat boobu nag jàpp leen ko bu baax chantage ndax rokki mi rokkaan rek defal ma lii ma defal na lii fexeel nag bu bul nekk jaamu kenn ku dul yàlla waaw ndax am na loo xam ne nii bu amee dañ lay jaamu loo sa julli sax doo too ko tal sa jaamu yàlla doo too ko tal ndax yaa nga ca ñoom lu la nga dugg ca bu ko kenn nangu la nga gëm gëm ko nga doyloo ko wóolu ko doyloo ko téye ko nag fa may jeexale nag mooy Lamine Cheikh yéen mbooloo mi taalibe fii yorul jikko dof ba fii yor yo fii léegi melul ni dof ba mani ni taalibe fii léegi melul ni dof ba lu ñëw yóbbaale ko laaj ma dof ba dof ba dafa tëdd ca taatu garab ga jinne ji ñëw benn jinne ñëw di ko jommal ma ab dof dafa tëdd ci taatu garab jinne ñëw di ko di ko jommal bi jinne ji jommal, façon ham njommal bu mu xam ni bu ko jommalee nit mu jombi jommal nako ko dof bi day jékki-jékki njool ba nar a laal asamaan jékki-jékki gàtt ba maasig suuf jékki-jékki tak fay def dóom kanamu mbaam kanamu golo kanamu xaj kanamu gaynde façon mu njommal bu mu mën rek bu mu xam jëf na ko pour jommal ko dof bi dof bi xamul ne lu ko jinne ci gën a jommal dof bi di ko seet di ko muy jommal jommal di jommal di jommal dof ba nekk tegal tegal ko ci nag bu gën see neex xam nga mooy ban di teqat di ko ree ree xaqtaay donc gidde ji ni ko yow yaa ñàkk jom yow sànq ba léegi maa ngi lay jommal guddeeg bëccëg subaak ngoon lu ne def naa ko lu ma xam ni dina jommali nit defal def naa ko waaye yow wëlbatiku amatoo looy def di maree mu ne ko li daf bi ni ko li tax maree maa ko xam mu ne ko waaw wax mu lu tax nga mu ne ko yow da nga xamul ba léegi da xamagul ba léegi nii ah, dañu laa jiitu ci man loolu nga xamul mu ni ko man lii ma nekk nii ñoom itam moo ma ko teg damaa juum mi démb tey soog a ñëw nga fii damaa juum mi démb tey soog a ñëw mu ni ko man lii ma nekk ñoom itam moo ma ko teg nga di ma ñëw di ma joomala dañu laa jiitu ci man loolu loolu gis nga loolu Cheikh réeru na reetaanu na waaye bind na de te dafa ko waxoon kon nag pas-pas rek dëggu ci li nga nekk waaw si si si xaj maa yi nee na taalib yi yére yu rafet du taaram nee na dëggu mooy taaram as-sidqu dëggu mooy taaru taalib yi taalib bi dafa war a dëggu ca la mu nekk gëm la mu nekk waaw sa kilifa ka la yàlla booleel muy sa sëriñ nga bañ ko yemaleeg dara waaw nga bañ ko yemale am fulla ak fayda bu ko defee ah nga gëm ko wóolu ko doyloo ko défendre ko défendre ko nag lu jóg nar a ñëw nar jëm ci moom muy dund ak mu nekkatu fi wala mi ngi fi nga taxaw ba loolu du agsi bu jaral na sa bakkan waaw loolu moo fi nekk kon nag waaw mooy ngëm moom nit tax day gëm te bañ a gëmantu gëmantu baaxul gis nga yéen mbooloo mi ma wax tey benn beneen wax soo ko tëj ñaan mooy lépp lu mu jëg baaxul tuub tuub baatu lu mu jëg tuub baaxul <laughs> lépp lu mu jëg tuub baaxul et ca commencé gëmantu da ngay gëm gëmantu baaxul da ngay gëm jàngantu baaxul da ngay jàng doxan doxantu dégg nga ñu bari dañ naan maa ngi doxan doxantu da ngay dox da ngay dox farata waaye doxantu loolu say loxo fu ne nga dem ba dem ba nii kii dem nee kii kii dox rek waaye boo boo boo dëgg yi tax yu dëgër dox sa loxo koo romb des rawaay da dox doxu doxu fulla ak fayda fooy dem ñu xam ni kii góor ay dox waaye jëme jëmeeti lu ngeen dugg te waaw kon nag loolu mooy wax bi Cheikh loolu mooy ndénkaane lii Adja Ami ñu ngi lay ndokkeel ñu ngi lay ndokkeel bu baax yàgg sa daayira nag waaw ñu ngi lay ndokkeel yàgg sa daayira di ndokkeel waa Mboro gépp nag di ndokkeel fédération bi fédération yi fa tabaarakallaahu daayira yi fi teew yëpp yëpp yëpp yëpp ñu ngi leen ndokkeel waaw bépp daayira bu fi toog ah El Hadj Wan El Hadj Wan moom itam dama xel day fattu yàlla xam na ko xel day fattu mais El Hadj Wan ñoo koy nuyu bu baax a baax di ko ziyaara borom taxawaay la ak itam alxaaji Moussa gis naa ko fi jàmbaaloo moom bu baax la ñoo ngi koy bu baax mi ngi lay ndokkeel waaw ci sa bis bii jaar na fa mu war a jaar mbooro ñépp ñëw nañu kenn desul ah euh, euh, sëñ Samba sëñ Samba Thiaw moom kenn waxaale ko moom foo gisee a ah, soxna ami di gisaale ko waaw suñu jigéenu bopp itam di suñu soxna di soxna Fari Diop waaw soxna Fari nga xam ni moom ah këram day sori woon na ci man de yaat ma njaay sori woon na ci man lool jaar nañu fu ne waxtaane nañu lu ne mësula jox sama dara dénk ma njabootam nag waaw seen mag saalix saa yu ma demee France mooy nekk sama jaati ji fu ma nem mu fekk ma fa seen ndey seen ndey ji bi yaat ma demee njabootam yëpp la ni bu leen fàtte la leen seen bàyyi dénkoon muy Mame Maguette xale yi fu ñu toll lu ñu dugg ba ci bërki démb xam ami ami Ndiaye ki démb rek ñëw na fa ziar si ma yaayam moo ko ni demal ci sa foo war a lu mu waroon def ay concours mu ne ko demal mu ñaanal la ñoom Samba ñëpp dañu ñëw ci man bu dégg bëccëg ñu ngi may nemmeeku loolu nag seen yaay moo leen ci gën a xiirtal ndax seen bàyyi dem na kon soxna Fari ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziyaara di nuyu itam sama beneen jigéenu bopp nag di soxna fal Fall fal soxna Ayda fal Mansour muy kenn ñoo ñëpp xam ko fi fa tabarakallah muy ku baax jité mam fa wad di di sama jigen di sama lepp ni ngi nii toog waaw waaw waaw soxna ami dal yow dal fa tabarakallah bu amé bu amé ñeneen tam ñuma wara tudd ci jigen ñi soxna ami man bëgguma tudd góor ñi tudd mu jigen ñi kat ay jë ay jigen ñi ay jë soxna ami ah ah <laughs> <laughs> <laughs> waa abi jàmbaar la jàmbaar la jàmbaar la sëriñ bi ñoo ngi koy nuyu moom itam bënn woo di ko ziyaar bu baax alxaaji Gueye itam bu ñu tuddee Mouhamadou Mansour Mansour imam Mansour eh, imamul akbar imam Mouhamadou Mansour Diop suñu turandoo bàyyi euh, ñ moom itam ñëw na sëriñ Adama Seck moom itam suñu doom bàyyi la bu suñu bàyyi bu tedd ba bàyyi Maxtaar Seck bu am taxawaay xam loolu xam nañ ci dara ah waaw waaw ndax dugg wallaay dugguma bàyyi kenn Aline Aline Meng ah Ndiaye ah euh, Serigne Ndiaye dugub ah Ndiaye Ndiaye Ndiaye Malick moom soxnaam nee na man man moom Mouhamadou Mansour ñëpp ci yam man may sëriñam Malick Ndiaye mais soxnaam moom nee na moom moom marabu ñëpp ci yam man may sëriñam te loolu daf ko teel a wax te boobu sëriñ sëriñ baa ngi dund njaboot tamit mu xëy na gis nga ma Mansour doomam Mansour Mansour ñu bari li mu yëgul li ma gën a bëgg la may defal toujours fukki fan ak juróom yi nekk muy indil ma saaku koko tiwaaw saaku koko man su ak bëgg ma lool fonk ma bàyyi ma xel ñëpp ah, njaboot suñ njaboot lañu mbooro yàlla moo ah, yàlla booy la ñoom ñoom ah waaw Lamine Lamine Fall nag moom kenn waxaale ko ko moom moom moom bàyyam moom bàyyam ak Cheikh Sidi Mouhamadou Mansour Baye Mor Fall ah ah waaw. ni ñu ndaw yi tarixa bi ñoo ko war a téye ñu dimbali ci mag ñi dafa nekk ci dëkk bi bi mag ñi di dund kon tey dañ naa ana Alaaji Saliou Mbaye ana Baye Ngal ana Baye Goré Dégé ana mag yi tarixa bi ay mag a ngi fi de ba léegi Alaaji Pape Kane mi ngi fi Ousmane Mbaye ak mag yi doon xadara bi mais dafa am lu nekk ci dëkk bi dafa war a daj xamul lu koy dindi ñun ndaw ñu ñu ñu bàyyi suñu kilifa yi am na loo xam te ni yow doo ko wax fii ku fi Cheikh Mouhamadou Mansour teralul amul maa gën a tuuti man maa ci gën a tuuti ndax damaa judd fekk leen mais dama ne amul ku fi Cheikh Mouhamadou Mansour donc teralul mu am ku dëkk Ngoro di wax ci Cheikh Mouhamadou Mansour ñu taw di ko xool du dëgg du yoon dafa am loo xam ne dafa war a daj ñu teg bàyyi suñu donc kilifa yi mënuñu ko wax parce que kilifa du wax bu kenn wax ci man mais suñuy kilifa nañ ñu ko bàyyi xam ñu koy may ñu ànd lii tax ñu ànd mooy daayira yi dafay bari dañoo war a nekk benn nit ku nekk nag man su ma demee Tiwaawan du ma fanaan fenn ci néegu sëñ may lay fanaan loolu laa gëm moom laa judduwaale sama baay ba suñu baay ba daf Cheikh Ahmadou Mansour daf ma ni dina ko wax tey sëriñ su ma soxla moo feebar mu yónni woon ma ma jógee Dakar ñëw ma téléphone na soxna si ni ko ñëwal nga fekk ñu dugg néegam waxtu wi man ko papa kii de dafa feebar mun ma feebarul dafa ëmb doom bu góor la nag ma ko tuddee yéenewu ko tuddee man lu ma gëm laay def de yéenewu ko barki soxal xalifa ma noppi ma génn mu wax mère Maty ni ko su maam Malick ci la koy tuddee jour ngénte ba ma wax Serigne ni ko midi laay tudd woo Serigne Moustapha ni ko 9h nga ñëw nga tudd ko mu ñëw ma tuddee ko ko sëñ woo ma midi ni ma yow lu tax nga tuddee ko maam moom mo nek sama xol mun dama doon xol sa ngeum mais xamoon na ni do mako tudde may sa serigne bay kon suma demé demee man ci yow lay do fanaan waye ko sii di xaalis maa lay doog njaboote sama kilifa nga nañu and nek ben nañu and muy nañu and day ni bari na fi mais nañu and ku ci nek mi ngi liggéey nañu organiser wu ñu ànd ñu nek ben nañu bàyyi suñu kilifa yi dafa laaj donc taxawaay ñu ngi gërëm nag donc waa Mboro yëpp am na lu fi am bu fi amatee leneen ngay dégg barke si di xaaj maay salaamaaleykum jigéen ñi nag ñoo nga ñaanal leen yoonu màgg ko yéene nga yéene ko sa xol yal na yàlla faj aaj yëpp bay Saloum Mbaye incha allah allahuma amin nangu leen ñaan sëñ ba ngi ñaan amin allahuma amin amin ya rabbal alamin allahuma amin ya rabb allahuma amin amin اللهم امين امين يا رب العالمين اللهم امين اللهم امين امين يا رب العالمين امين gin yu baax nangoo muñal ak lewet te am fulla da daan maye ba nit ñi jaaxle ku mel ne kii dootul yombo mooy borom mare ma dem na noono sëriñ Mansoor dem na noono borom daara jile dem nga noono Sénégal jooy nañu weetu mam boy bu weeru koor wi ma saan feeñ sëriñ Mansoor nga ci daara ja tafsir Quraan ak joxe xam-xam mam Abdou